li ngay wax nii li ngay wax nii di yow kese la koy def ñi ngi koy ñoo bari loolu damaa dem ba xam ko est-ce que xam nga ne aji ubbi na restaurant ak ay tantam boo xam ne moo ko moom xam nga ko parce que moo fa nekk mais ndey ak binta restaurant bi bees bi aji ubbi moom investir ko xaalis doon di ndey ak binta nekk fa boobu seen tante moo ko moom waaw kooku seen tante la kooku mooy seen taawu ñoom yaay moo restaurant bi aji ubbi te binta yor ko Binta moo koy gérer mi ngi aji moo ubbi benn restaurant Binta di koy gérer restaurant bi mi ngi aji li mu dóor xaalis ci réew mi ñoo bari dangaa foog ne yow yow yow kese la day dóor xaalis nit ñu bari di ko yónnee amoon na benn kilifa gu mag ci réew bi da doon def chaque fin du mois mu jox ko agent de poste deux cent mille aji waxuma ko ñu dem ba ci biir dem ci biir dem ci biir benn jour waa ji wax ma ko mu ne ma chaque fin du mois la ma koy defal ci compte am orange money deux cent mille may chaque jour mu ngi may rey yu argent de poste deux cent mille aji day yónnee papam xaalis ay cinq cent mille ay trois cent mille di ko ko may waaw yow <laughs> yow yow nag yow nga yaa ngi ci réew mi bu dee dégg nga bëgg dégg man lu ci génnee rek laa bëgg day day orange ne papam cinq cent mil trois cent mille xaalis chaque weer bu dee day jox papam xaalis ci dóor yi muy dóor nit ñi di yërëmtalu ma leer na ma leer ne Kaliphone li mu dugg aji la dafa guddi rek waaye maire ba koy liggéey te waxuma la sax li police xam waxuma la man li ma xam de waaye li police xam rek ci aji muy doxale noonu la mel restaurant bi yoof la nekk ubbi na restaurant boo xam ne mbokk yi caatu yaayam mi tudd Binta moom moo fi ubbi bokkul ak restaurant bi ñu am benn benn benn restaurant bi bi mu koy ubbi matériel bi mu ubbee euh, restaurant bi yëpp ba ñoom fan la ubbi restaurant bi man maa leen ñu nekk appartement ba fële parce que dañ doon euh, ndekki ñu doon jaay ci restaurant Yoff ba ci appartement ba nekk foofu di yuuxu di wax ba une heure matin deux heures du matin ci laa ko ne tantami buñ fa fanaanati mënuma ndekki bi ñuy jaay ci restaurant bu bees bi Yoff moom la defar guddi moo tax ma ne ko nañ ko defaree seen restaurant ba mais pas foofu. aji ubbi na restaurant benn kilifa bu may waxal boo xam ne aji xam na turam xamul tax suba xamoo aji kan lay wax aji mën na toog fenn gis nga gis nga Kaliphone ni ma def toog fenn yàq sa diggante ak say nit yow baax na bu ko présenté aji benn kilifa bu ma xam musuma ci dugg aji nu ma mënal def ba am ci nit ñi xaalis dossier beeg yeneen elle